قالوا ñoo ngi leen di nuyu di jëkke nuyoo bi sëñ Mountakha xalifa général bi yàlla na ko fi yàgg te wér mu yàgg ko fa fekk ak jëwrinam bi mu teg fii muy sëñ Cheikh Lappé nga xam ne ni moom lañu booleel liggéey bu nu fi indi ci loxoom lañ koy teg bu nu xasee ñëw ci moom ba noppi amatuñu soxla ci moom sëñ Cheikh rek la ñuy am soxla ah liggéey bi nag day ndigal ndigal boo xam ni maam Cheikh ra ku tedd ki moo ko joxoon maam Cheikh Rafal ca 1915 1916 ci la ko joxe woon liggéey boobu mu ñu tàmbali ko boobaak léegi nag ñu di ko togg ndigal loolu mu jóge ci maam Cheikh daa wàcc ci maam Saliou Fall rakkam ju baax ja eh, ndigal loolee itam ñu di ko jëfe a ah, ba ñim fi bàyyi seen i doom ñu di ko jëfe bi ñu fi jógee seen i di ko jëfe sëñ Gàdd Fall mi nga xëy nag mooy waajur sëñ Muudu Anta Fall mii fi nekk moom it ci moom laa nekk liggéey bi tam ci sama loxoot la ko teg nu di ko liggéey ah nañ ko daan liggéey kër sëñ Touba gii moo fi jëkk jëkk a dugal nit ñëpp 1985 benn bâtiment bi rek lañ fi defoon moom lañ fi fekk sëñ Abdou ñu dindi banti coulage yeeg lépp teg ko fi laa ku fekk ak ku ñuy mu Moudou Mamoun Niang bi ñu ñëwee fii mu yónnee ndaw ne ana fu ñu bàyyi ko ñu ne kër sëñ Gade Fall mu woo ne ku mu aan yawal ma ne ko man baa ñëwee mu ma jox ko liggéey bi jébbal ko ko ne ko nag fas na yéene ba kere weer wi dee bis bu ne ñu toog di ko indi lu ñu am dañ indi. loolee ci lañu sax ba bi sëñ du jógee itam sëñ muudu doomam ji jëlaat lépp tegaat ko sama loxo ñu continuewaat di ko liggéey ba fii mu nekk itam nu fas ko yéene di ko indi sëñ Muntaxa di ñaan nag yàgg ko fi indi lool di fi fekk sëñ Muntaxa yàgg ko fi indi lool di fekk jëwriñu sëñ seex Lappe mu di ko séddale ci daraje sëriñ Touba doole maam Seera Fall ci barke maam Sali Fall ñu ànd koog mbooloo mi ñu àndal ñëpp nag ñu takku nag ñu am pas-pas lañ ci nag ndax fu waay na ci Sénégal ak kenn ku ne ku sëñ bi am kenn ku ne weer wi teroo xam nga sa bopp yaa ñëwal sa bopp la nga yor def ko ci du yónnee du laaj yi waaye kenn ku ne xam nga pas-pas fa nga ne di nga la nga yor indi ko ànd moom ci liggéey ba liggéey bi jeex sëñ bi ñaanal ñu door a delluwaat ci itte loolu moom itam kon ñoo ngi ci gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëfati Serigne Bamba jaaraama maam seex Ibrahima Fall kon nu jóg rek te santati maam Cheikh Ibrahima Fall mi nu wan Ahmadul Xadim aju egg jeeg aji yeggale ji kon nu jóg rek santati rek tey dolleeti sunu bopp tey dolleeti bépp jullit te xam ne kat li may wax baay Fall yombul waaye lu ñu yëg ne ku ko ku ko yëg ku ne dañ la koo yëgal waaye ku ñu yëgalul doo mën a yëg kon Cheikh Ibrahima Fall mi nu yëgal kuy Cheikhul Xadim ban mën a yëg kuy Cheikhul kon jaajëfati Cheikh Ibrahima ndax maam Cheikh ah doom ndogu day saa teewee man Cheikh Ibrahima Fall bis bu yàlla sàkk am naa weer kon ñun dañuy tàmbali benn fan ñaari fan ba am fan weeri fan doog am weer maam Cheikh Ibrahima bi ñu ko laajee lan moo waral loolu dana bindal doom ndogu ñu bind deel waaw keef mu ne deel gi ñeent la waaw gi juróom-bent la keef gi di ñaar fukk muy ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent kon nanu xam ne Cheikh Ibrahima Fall lépp lu mu def dara du asal ab Baay Fall nag day muñ tey moytu di roy tey romb yaakaar sëñ bi am ci moom yaqin dégg ndigal te ànd ak doylu nanu xam ne Baye Fall bi kat day jëfe ndigal di bàyyi tere ku sax ci lii nag duñ la mbugal nañu xam ne kat Baye Fall bu dëggal moo gën lépp lu mu mën a doon ndax Serigne Mountakha Khadimal Moustapha mi fi nekkal Seexul te mat ko sëkk leeral na loolu Serigne Bamba dane adoom jàpp leen Ibra Fall bëgg leen Ibra Fall ngir bëgg maa bëgg mbaa ngeen bëgg Ibra Fall ngir bëgg gi ma ko bëgg mbaa ngeen bëgg Ibra Fall ngir bëgg gi ma bëgg képp koy di nga Cheikh nag amut tuyaa bay julli ana lu waral loolu kenn mënut a julli te tëriwoo Fatiha te luñ ne baax na ba ne loolu baax na Cheikh Ibra Sëriñ Bamba rafaatale ne ko Cheikh Ibra ndax booy julli bu ne da nga tari Fatiha te saaboo boo taree Fatiha dugal nga Cheikh Ibra ci biir ndax li tax nga dugal Cheikh Ibra ci biir mënee suta julli te tëri woo Fatiha te Fatiha 124 araf la Baye Fall boo ko adatee 124 la lay jox kon Serigne Mountakha dikk gën koo wéral ne baay Fall bu dëggal moo ma gënal saa boobu kon dëggal mooy mbir mi muñ tey moytu roy yaakaar sëriñ bi am ci moom yàqin dégg ndigal te doylu maam Cheikh Ibra addoom waxi yàlla day mooy alxuraan waaye xasaayit wax ak yàlla la ku yàkkamti nag mun xaar ku kuy damm ak nit ku sottal la mën a àndal te sëñ Bamba mooy ki sottal damay wax ne nag ëllëg yamul xiyam kat bu yàlla ne woon jullikat yi jóg leen taxaw rangi dana xat lool waaye ki julli ci géej gi nag maami Serigne Mountakha Bachir mi doo ngay jóg taxaw de ku dul moom du moom kon nanu xam ne jàpp benn fonk yëpp mooy mbirum Cheikh Ibra ab Baye day muñ Baye day moytu Baye Fall day ragal yàlla Baye Fall day moytu Baye Fall day dimbalee ku tane mu dimbali la ku ku tële mu dimbali la ku tële mu yóbbaale ku mu tooñ jéggul la ku ko tooñ mu jéggal la Baye Fall daal fii la nekk ci lii la sax maam Cheikh Ibrahima ne joxe moo gën julli maandu moo gën koor fanaanee naafi la nag sàmm sa juróom-ñaari cër yi la yàlla dénk ba bañ a bañ a mooy yàlla mooy li ko gën kon lii moo di Baye Fall ku sax ci lii yaa ngi ci ak Baye Fall Baye Fall bu ñu la ko yëgalut doo ko mën a yëg waaye bu buñ la ko yëgalee faaw nga yëg ko Cheikh Ibra dane ndénkaan ka nga wóolu waaye jëmbat fala doy daan na sëriñ bi day dama ko maanaam daf ma dama damaa wóolu lool ba tax mu dénk ma seen jëmm yi daan na adoom ah, man damay sàmm boo xam ne du ma réeral te du ma ruural te damay reggal te damay jofal te lu ma jofal jox sëñ Bamba du ma dóor te damay jubal kon kii mooy ki mën a defar Cheikh Ibrahima Fall Kott Cheikh Ibrahima Fall dong ku bañ na mott bàyyi la nun mbaa sa xol du futt mbaa ñu xëy na dee nu gindee